moom nag euh, mu bokk ci parti bi nga xamante ni moom mooy euh, PDS nekk membre ci euh, kuréel gi nga xamante ni moo ëmb cadre yu PDS yi ba pare tamit bokk ci commission communication moom la ñu fas yéene seqal waxtaan tey jiba réew mi FM ma ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal bu baax di la remercier si invitation bi nga xam ne moom nga ma defal tey. di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu militant les militants et du parti démocratique sénégalais en premier ñu teg ci suñu secteur général national maître Abdoulaye Wade ak suñu candidat Karim Meïssa Wade di nuyu askan bi nga xam ne moom ñoo ñoom ñoo ñu déglu actuellement. Euh, jërëjëf euh, Alioune Djiba tey nag waxtaan wi dañu koy dooree ak li nga xamante ni moom mooy euh, actualité bi bokk na ci tournée économique bi président Macky Sall di def yéen opposition bi muy def tournée économique. dem jege aw askanam waxtaan ak askanam def ay inauguration pose première pierre yéen euh, ngeen di wax ay campagne déguisée lu la ngeen wax ko ci lan moo ci sa xalaat ci tournée économique boobu. Euh, c'est vrai bon euh, période yi di yi nga xam ne moom la ñu nekk ni président Macky Sall dafa entamé une tournée bi nga xam ne mooy tournée économique soi-disant tournée économique pour lui. mais en réalité ñun xam nañu ni ce n'est pas une tournée économique c'est une tournée plutôt politique parce que euh, li ñuy li ñu xam si tournée économique mooy boo demee si benn gox danga fay fekk les acteurs yi nga xam ne ñooy évoluer dans le secteur économique ñooñu nga waroon a dajale avec tous les services techniques décentralisés et euh, yi nga xam ne mooy euh, les techniques centraux yi nga xam ne ñoom nga àndal ngeen toog au niveau de chambre de commerce lu mel noonu wala gouvernance ngeen def ce qu'on appelle des ateliers euh, ngeen def par exemple un travail une séance de des séances de pour ngeen mën a génnee la suite de de cette séance de travail benn document euh, bi nga xam ne euh, moom mooy wone les problèmes dont vivent n'est-ce pas ces terroirs localité yooyu ngeen jéem a xool naka ngeen di résoudre ni problème jafe-jafe yooyu mais lu ñu constaté bu président defee localité yëpp dañoo constaté que ni y a plutôt plus de folklore n'est-ce pas que que d'économie parce que président est en train de revoir ses troupes pour voir est-ce que li mu fa bayoon euh, mu ngi fa donc loolu ne serait-ce que c'est juste pour préparer ne ce pas les futures échéances électorales parce que ñun xaaruñu ko woon ci loolu parce que personnellement man li mu li ñu ko daan li ma ko daan xaar mooy qu'il nous fasse l'évaluation des conseils des ministres décentralisés parce que n'oublions pas que le président dafa def une tournée nationale mu promettre euh, askan bi euh, li nga xam ne ñëpp gis nañu lu mu leen promettre dem Ziguinchor ne ne dina leen jox 360 milliards pour 54 projets dem Kolda pour 254 milliards Matam bi si boppam ne na 127 milliards presque cent vingt six virgule et quelques milliards donc loolu yëpp euh, lu ñu gis donc dañoo gis ni inauguration yi nga xam ne moom la ñu def n'est-ce pas donc euh, en fait euh, ne reflète pas en réalité li nga xam ne moom la président euh, wax surtout ak Kaffrine foofu la taxaw ne Euh, n'est-ce nu muy jéem a dajale waa Benno Bokk Yaakaar ñu rangé wu li nga xam ne candidat bi nga xam ne moom la parti coalition bi choisir loolu lan lay tekki day tekki ni président foofu newul di wax ak n'est-ce pas peu son peuple dafa trompé wu n'est-ce pas d'audience parce que euh, li nga xam ne yow ñi nga xam ne ñoom nga war a waxal mooy sa mooy mooy po askan Sénégal mais tu as parlé n'est-ce pas à ton parti n'est-ce pas uniquement donc loolu mooy wane ni président ñëwuloon n'est-ce pas pour régler la question économique n'est-ce pas de cette population mais en réalité président dafa ñëwoon pour n'est-ce pas xool naka lay mu ne euh, naxaat une seconde fois n'est-ce pas une énième fois en fait n'est-ce pas askan bi pour que élection yi di ñëw ñu mun koo voter. mais donc euh, loolu laa loolu laa ni n'est-ce pas euh, président euh, may ma terminer c'est comme ni ma koy waxee sama sama gars yi nee naa leen c'est un concert n'est-ce pas politique. n'est-ce pas concert gouvernemental bi nga xam ne moom la président bi kii ou lui n'est-ce pas c'est le chanteur n'est-ce pas de ce de ce pour pour mu mën a euh, également les mêmes promesses la même chanson qu'il a eu la population c'est la même chanson moom la nekk di joxaat population bi di leen di promettre di leen di promettre te loolu askan bi comprendre nañu yeewu nañu moo tax lu ñu gis tey au niveau de du Fouta n'est-ce pas ñu gis ni population bi ah, dañoo taxaw ah même suñu suñu nekkee population bu bu minoritaire mais am na ay jeunes ay femmes ñu ndaw ñu taxaw ne président n'est-ce day naxaate président lu mu fi wax du dara. lu dul non lu du dara lu dul bëgg leen mepp pour ñu mun koo votel donc non du opposition mais même mais parce que mais euh, opposition mën nañu ko comprendre par exemple tey ñun parti démocratique sénégalais wala benn parti taxaw ne ñu ngi porter combat boobu mais ce sont des jeunes de cette localité qui se sont euh, soulevés spontané avec spont avec spontanéité pour ñu mun a euh, réclamer li nga xam ne moom moom la président. mais mais Alioune mais Alioune immigration yi président def. inauguration yi mu def euh, ay hôpitaux ak ay euh, ay routes defar euh, diggante Ourossogui Bakel deux cent kilomètres inauguré ay pont loolu lépp nga bëgg ko loolu lépp nga bëgg ko jël bañ ko rafetlu bëgg ko sànni ci mbedd mi est-ce que loolu tey askan bi dëkk Kaffrine Kaffrine ba muy Kaffrine ba tey yéen PDS ngeen amoon fa ku fa nekk ku leen fa nekkal mm-hmm. mosu leen fa def hôpital régime euh, socialiste yi mosuñu ko def président Macky Sall ñëw defal Kaffrine hôpital dama si tudd euh, lu mel noonu rek mais loolu euh, est-ce que mënu leen ko rafetlu d'abord. li nga wax merci beaucoup c'est une très bonne question parce que lu nit def rek te muy lu baax ñëpp wax nañ ko mën a rafetlu man bokkuma si ñi nga xam ne dañuy gis lu baax ne li baaxul mais lu ñu jàpp ñun. n'est-ce pas du président président lu mu def Kaffrine ñun def nañu lu ëpp lu ko raw parce que également n'oublie pas que euh, Kaffrine a été érigée en département sous le règne de Abdoulaye Wade euh, le l'une des plus grandes mairies yi nga xam ne ñoo gën a rafet ci Sénégal Kaffrine lañ ko tabax te Sénégal yëpp teg nañ si bët donc ñun inauguration euh, au-delà de hôpital yu muy inauguré n'est-ce pas à côté de Kédougou ah Nénéfercha le village Nénéfercha mais amoon nañ fa benn structure sanitaire hôpital bu gën a mag bu gën a bu gën a am ay ay ay comment dire ay matériels yu sophistiqué bi nga xam ne moom la madame Viviane Wade avec sa fondation teg foofu mais bu Macky Sall ñëwee il a il a balayé d'un revers de main toutes les réalisations de Abdoulaye Wade tey boo demee Nénéfercha doo xamee ban genre hôpital la mais à côté de ça n'est-ce pas euh, la population euh, de de de de ces environnements ñu ngi souffrir parce que il dañuy jógee depuis foofu pour ñëw au niveau de Kédougou te boo demee côté Kédougou si ngay xam ne Kédougou c'est pas c'est c'est comme si c'est pas le Sénégal parce que dangay ngay xool ni euh, foofu yoon yi ngay xam ni ngay gis nii di daw comme Sénégal li ngay gis nii ngay yéeg oto di daw foofu am na ay bërëb yi nga xam ne pour dugg fa ay camion nga fay dugg man j'ai été là-bas pendant presque deux ans maa ngi jàngale dans cette localité bu ñuy dugg si àll bi pour dem jàng yi si camion la ñuy dugg n'est-ce pas ak ay mbaxane poussière bi duñu xaw a kii piste laa lay wax ni moom ngay demee foofu boo demee gis Sabodala gis population bu fa nekk par rapport ak or bi nga xam ne moom lañ fay euh, exploité da ngay xam ni population boobu ñu ngi souffrir mais misère bu fa nekk man affaire bi daf ma yéem dafa dafa yéem. parce ah, mais mais Alioune mais Alioune yéen euh, tamit euh, maanaam comprendre leen. Mm-hmm. Euh, yéen opposition bi dafa xaw a jafe yéen président Macky Sall bu toogee Dakar ngeen ne Sénégal du dakaar kese dafa war a am benn équité sociale boo xamante ni war na am euh, ci lépp ndax euh, ñu bari dañuy wax ne Macky Sall li muy def lépp dakaar kese la koy def. Euh, war a jege aw askanam te ñu xam ne Sénégal ñi ëpp ci askan bi nekkuñu ci ville yi ñoo ngi ci àll bi. Mm. léegi dem gi président di dem jege askanam nemmeeku leen mm. waxtaan ak ñoom. Mm. dafa immigration jàppale leen. loolu xanaa war ngeen ko mën a rafetlu même bu ngeen da ngeen mën ngeen a ñaawlu nag peut-être folklore bi. waaw no c'est que li nga wax nii euh, man dama dama dama jàpp di tey président de la république li mu waroon a njëkk def mooy analyser la situation du pays. xam jafe-jafe askan bi lan la parce que tey d' les rapports de l' ANSD. non mais xamu ko parce que d' les rapports de l' ANSD tey euh, 15,7 pour cent n' ce pas des jeunes de 15 à plus de 20 euh, de de de 15 ans euh, mais ils sont dans le chômage. et donc 18,6 pour cent yi nga xam ne ñoom ñu ngi nekk dans le comment dirais dans les villes euh, dans la dans la capitale comme Dakar. Hein, donc et mais les treize virgule et quelques xool ñooñu ñu ngi dans les dans les zones n'est-ce pas de de donc ñooñu dañuy quitter les jeunes là quittent les zones rurales pour ñëw dans la capitale pour venir chercher du travail parce que lan la dans le village y a rien qui les retient là-bas c'est pourquoi donc aujourd'hui loolu président bëgg a jeexal loolu moo def moo tax muy defar ay ferme ci ci àll bi dafa leen bërëbu fajukaay dafa leen ay poste de police gendarmerie mais ma continuer si ah. sama débat dinaa ma li si li may wax euh, président euh, deful analyse bu wax si mbir mi donc euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à la quête du travail aujourd'hui il y également Euh, ñi nga xam ne amuñu benn formation benn qualification ñoo ëpp foofu ñi nga xam ne ñoo am parce que l'ANSD lu mu déterminé ne plus deux cent mille personnes par an ñu ngi dem di uti ji liggéey donc ce qui veut dire que moom li mu wax si liggéey bi nga xam ne moom la bëgg a jox ndaw yi fii nga xam ne moom la ko teg mais ñëpp xam nañu loolu ay naxaate la parce que la DER en fait nest pa li nga xam ne moom mooy son son son son son objectif mooy euh, financer les jeunes et les femmes surtout dans le domaine de la pêche et des mais malheureusement tey DER bi nga xam ne moom la ñu jox un fonds initial de 30 milliards réglé wul problème askan bi tey DER mi ngi logé à la présence donc mari mooy Macky Sall mooy xool ñu mu koy jox ak ñu mu ko dul jox donc ce qui veut dire que là cette distribution partisan la dafa dafa dafa am une réalité n'est-ce pas avec Macky Sall donc loolu moo tax ma jàpp ni la tournée économique n'est-ce euh, bi nga xam ne Macky moom la moom la moom la wax nii du tournée économique en réalité mais c'est une tournée politique parce que pour xam les problèmes réels d'une d'une d'une population il faudrait que nga def des séances de travail avec cette population waxtaan ak askan bi avec tous les acteurs yi nga xam ne ils sont dans le côté économique ñuy jouer rôle bu am importance les chambres de commerce ñan ñoo gën a placé dans les départements les régions que les chambres de commerce n'est-ce pas si problème yi nga xam ne ñoo moom la moom la askan bi di jàkkonte mais président deful loolu mais président dafa ñëw pour inaugurer en même temps pour essayer de remobiliser ses troupes en vue des échéances futures mais ñëpp comprendre nañu loolu donc ñu jàpp ni n'est-ce pas lu mu nekk di def noonu ñun comprendre nañu li nga xam ne moo si ne mais beneen effet bi nga moom laa bëgg a euh, noter si si si mbir mi te nga xam ne euh, c'est vraiment désolant mooy le fait que nest euh, des nervis n'est-ce pas dans tournée de Macky Sall mais li nga xam ne moom moo am réellement mais ces nervis là ñi nga xam ne ñuy brutaliser les jeunes de ces localités xam nga ni loolu jaaduwul. parce que tey dëkk bi ñu ngi toll si fi nga xam ne situation d' insécurité totale. parce que tey bu ay nervis yi taxawee surtout les événements de mars l'ont montré ay nervis yi di di tirer di dóor di def lu kenn xamul mais en complicité. avec n'est-ce pas euh, nos forces de l'ordre qui sont là mais loolu euh, dafa doy dafa dëkk lu doy waar mu nekk non non dama ne mu nekk par exemple un pays bi nga xam ne euh, pays de gangsters pays de western comme dans les Far West n'est-ce pas ah xam nga loolu métti na pour suñu réew donc moo tax may appeler au au chef religieux ñi nga xam ne ñu ngi may déglu ak ñi nga xam ne ñi euh, euh, nga xam ne ñi nga xam ne des gens qui stabilisent qui qui qui jouent euh, pour la stabilisation n'est-ce pas de pour la paix dans ce pays Euh, ma leen di woo di leen di xamal ni nañu dox tànk yooyu ñu ñu gis Macky parce que Macky Sall fu mu nekk nii il est en train de de parce que euh, askan bi nga xam ne yow ñoom ñoo la fal nga dem di leen di seeti pour nemmeeku li nga xam ne yow moom nga def foofu si biir dëkk bi pour waxtaan ak ñoom si seen jafe-jafe mais laaj na quand ni nga dégluwee les universités les étudiants de de Gaston Berger boo demee gis ñeneen di manifester waroon nga mën a taxaw nga déglu leen ak nopp da nga euh, mais dama ne mais dama ne dëggoo ma de ma ne boo demee ba déglu ñooñu dem ba Fuuta war a mën a déglu les jeune qui sont en train de manifester war nga leen porter une oreille attentive nga déglu leen parce que su doon tournée économique la waroon nga xam ban jafe-jafe la ñooñu am parce que jafe-jafe yi moo tax ngay def tournée économique pour jël en compte ces ces ces difficultés nga dugal ko si si li nga xam ne moom nga bëgg a résoudre pour nga boole ko si booy booy defal dëkk nga defar ko mais li mu def ñun xam nañu côté de ça il des écoles yi nga xam ne ñëpp xam nañu ne c'est des abris provisoires yi nga xam ne presque six mille et quelques abris provisoires mi ngi si suñu réew euh, moo gënoon mu taxaw n'est-ce pas jublu si liggéey bi que muy mobiliser une ah, république. mais est ko topp. tiit euh, non parce yi. non non fu mu génn mbooloo mi topp ko. président Macky Sall gi mel ni si Macky Sall mais Aliou fu mu génn président nit ñi topp euh, ñun duñu tiit nga ko d'accord man mënuma mais est-ce tournée économique bi muy def fu mu tourné fu mu jaar nit ñi topp ko. waaw mais nit ñi mën nañ ko topp fu leen neex c'est c'est leur kii ànd ak moom mu topp ko mais ñi nga xam ne ànduñu ak moom ñu ngi toog seen topp na ko moom non dama ne mbooloo yi nga xam ne ñoom ngay transporter de Dakar jusqu'à Woré Fondé xaw ma jusqu'à su jusqu'au Fouta mais kooku <laughs> du du mbooloo bi nga xam ne mooy mbooloo askan boobu donc en fait tu trompes l'opinion Euh, loolu man du ma si débattre parce que xam naa ni ñëpp wax nañ ko waxaat ko dans les dans les plateaux nee nañu n'est-ce pas Macky dafa jël surtout ces euh, militants ces ministres là ak ces directeurs gars yi mobilisé fii jël fay leen yóbbu leen mais en fait le rôle d'un ministre ce n'est pas de de on ne pas juger un ministre par sa capacité de mobilisation on doit juger un ministre par ses par sa capacité n'est-ce pas mu wone askan bi moom lan la valoir pour que mu mën a régler les jafe-jafe les problèmes nest de de du ministre bi nga xam ne yow sa role mooy n'est-ce euh, mooy mobiliser ay nit mooy di di jëlee kaar di ko jëlee fii di ko yóbbu Fouta kooku bu ñu ko defee nga xam ne ce sont des ministres qui ont raté leur vocation. donc le gouvernement de Macky Sall encore une fois c'est pas un gouvernement qui va régler les problèmes des Sénégalais. c'est un waaye parce que <laughs> li ma la wax moo si ne parce que tey ministres yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di mobiliser Macky Sall sa waxal na ko boppam nee na bépp DG bi nga xam ne perte nga sa sa gox dalay dax donc moom jugé wul nit ki par rapport à ses mais moom day juger ministre par rapport à sa capacité de mobilisation loolu la def. nekk nii. léegi euh, Aliou askan bi a d' accord euh, jërëjëf euh, Alioune Djeba. Mm. yow nga bokk ci PDS ñu fàttali ko suñu mbokk auditeurs yi ak suñu mbokk auditrices yi. Mm. nga bokk ci kuréel gi ëmb. Mm. cadres yi. Mm-hmm. fédération nationale des cadres libéraux. tout à li tax ma rappeler loolu il faut auditeurs yi comprendre que ne yow da nga nekk biir PDS ndax dafa am looy naqarlu sànq nii. looy dénoncé muy ay nervi mm-hmm. te yéen PDS ñu baree bari ku mm-hmm. tudd nervi seen xel dem ci PDS. yéen est-ce que am nga be am ngeen benn leçon de morale bu ngeen di joxe par rapport ay nervi Aliou Djiba non xam nga boo waxee affaire nervi hmm. man dafa may jaaxal parce que loolu aussi day nekk une accusation euh, si li nga xam ne euh, man moom laa comprendre loolu si li ngay wax parce que également tout parti politique buy def tournée wala buy ànd ak euh, ay ay leader dañuy ànd ak des gens yi nga xam ne ñoo leen di protéger comment dirais-je maa ngi wax ni au Sénégal ni c'est un territoire c'est qui est un et indivisible kenn mënu koo xar ñaar un citoyen a le droit de se déplacer kenn mënul taxaw ne citoyen amul liberté boobu parce que si suñu constitution si suñu constitution wax nañ ko à son à son article euh, comment dirais-je euh, à son article cinq euh, non euh, à son voilà donc à son article huit mhm. n'est-ce pas euh, à comment dirais-je la liberté parmi les libertés parmi lesquelles n'est-ce pas moom la ñu am nous avons la liberté n'est-ce pas de déplacement suñu article 8 moo ko wax ci suñu constitution donc kon ñun n'est-ce pas am nañu droit n'est-ce pas tey Euh, ce peuple citoyen am na droit déplacé wu fu ko neex lu mel ni Bougane Gueye quand tu prends euh, Bougane mu déplacé wu par exemple dans une zone mu am ñi nga xam ne ñoo koy attaqué te le rôle de l'État c'est de protéger ses parce que euh, ñi nga xam ne moom mooy police seen rôle mooy loolu donc mais suñu demee ba di def en complicité avec n'est-ce pas ces nervis ñuy jàpp ñooñu par exemple di di duma mais ñun dañuy poser au problème dans quelle république nous sommes yi ngay wax noonu ñoom ñoo def noonu ci PDS mmh. très sincèrement gisuma benn yoon bi nga xam ne nervi yi parce que nous avons des calots bleus mais gisuma benn nervi yi si calots yi nga xam ne ñoo montré wu noonu parce que calots bleus yi Ablaye Wade la ñu daan défendre fu ñu fu ñu dem Ablaye Wade la ñuy àndal donc euh, man gisuma lu mel noonu. donc soo ko gisee tamit soo ko gisee non dama ne. bu ñu non mais non dama ne mais dama ne bu ñuy ànd ak ab lay Wade boobu police ak gendarmerie mi ngi fi mais Abdoulaye Wade bu mu nekkee président de la République en tant que président de la République mm. ça ce sont les forces de sécurité et de défense ñoom ñooy ànd ak Abdoulaye Wade mooy la gendarmerie le groupement mobile d'intervention ñoom ñooy ànd ak Abdoulaye Wade di ko diriger man je me rappelle en ce moment j'étais à Sédhiou Abdoulaye Wade bu muy ñëw à Sédhiou man il m'a trouvé là-bas les ñu ngi logé école école primaire bu nekkoon ma école 2 mais ils étaient venus en truc parce que suite pour pour pour pour pour garder le président ma wax euh, lu mu waroon def mooy c'est le plan yooyu ngay wax bi Abdoulaye Wade nekk président lan lañ doon lan lañ doon def ci biir PDS. mais mais calots bleus yi en fait ils étaient ils étaient dans le PDS ils étaient avec Abdoulaye Wade ñoom ñoo ko daan ñoo ko daan garder. avant mu nekk président. avant mu nekk président léegi bi mu nekkee président. bu mu nekkee président mais. en fait non dama ne bu bu ñu nekkee président am na ñi nga xam ne ils ont ils ont ils ont ils ont quitté am na ñi nga xam ne ils sont restés dans le parti. mais mhm. ñu wax ne ay nervi lañu woon te attaqué woon. mairie bu maire mu Sacré-Cœur. non moom laa lay wax ma ne accusation boobu man yow yaa ko porté mais man je porte pas parce que que justice bi prononcé wu na si ba wax ni c'est le PDS qui est derrière tout ça mais non loolu amul. donc man dama jàpp ni euh, li justice wax je pense que loolu mooy lu te la décision de justice kenn mënu ko commenter pour le moment parce que justice moo ko wax donc man si justice boobu laa tënku pour wax ni accusation yooyu dañ dama ko dëgg dëmb ñu am na ku wax ma ne non c'est une parce que li nga xam ne yow euh, justice moo moo war a déterminer. ñi nga xam ne ñoo nekk derrière tout ça mais justice waxul ni diw ak diw PDS moo ko def non non. mais mais Aliou li ñu tudd violence doon tudd PDS bëri tey lu tey lu nekk fa lu ne fan ñëpp gis nañ ko. d'accord ñëpp gis nañu ni tey aujourd'hui Euh, li nga xam ne violence bu am parce que avec les les téléphones là gars yaa ngi koy photo ñu ngi koy lancé fu ne donc gis nañu brutalité bi nga xam ne moo nekk euh, si kii euh, Macky Sall donc boo boo boo ma nee tournée économique Macky devait écouter ces gens là même bu doon sax deux personnes la Macky devrait mais ah. comme Macky il dit que il ne voit pas le rouge donc personne n'y peut rien. d'accord léegi mais son réveil sera brutal. parce que euh, les événements de de mars l'ont démontré. léegi Aliou euh, une minute rek. ci violence bi ñu gis. wala mhm. li nga xam ne ñenn ñi njort nañu ne. Mhm. Euh, li xeeñ. Mhm. neexul rawatina élection locale yi ñu dëgmal. ndax tey par exemple tey. Mm. Euh, ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall mm. te ñu man leen a tuddee ay nervie mm. ñu gis ne dañoo nekk yor ay yat duñu police duñu gendarmerie. di dóor askan bi. ñeneen ci opposition bi ku ci mel ni Ousmane Sonko dafa ne pour ñu riposter. Mm-hmm. ñeneen ñi tamit jàpp nañu dañu war a riposter loolu. Mm-hmm. Euh, fan la mën a yóbbu senegal non xam nga euh, man duma commenter lu Ousmane Sonko wax mais en fait ñun Ablaye Wade wax nañu ko lu yàgg nee na dóor fayul. loolu Abdoulaye Wade moo moo ko moo ko moo ko moo ko xamal Sénégalais yi mu ne ku la sànni xeer non dama ne non no non parce que si constitution bi la bokk et puis Alxuraan sax daf ko wax n'est-ce pas ku la dóor fayul donc pour loolu y a pas de question à se poser donc dafa leer nañ euh, man dama jàpp ni Macky Sall moomul Sénégal le Sénégal n'est pas un royaume nest pas où il y un roi dirigé par Macky Sall Sénégal nest pas ñun ñëpp a ko bokk il suffit que tu as la nationalité tu né au Sénégal tu as la nationalité sénégalaise ñun ñëpp ñoo am les mêmes droits dans ce pays lu la lu loo gis li nga xam ne métti na la te nga mën koo wax danga ko war a dénoncer parce que loolu mooy rôle n'est-ce pas d'un d'un d'un d'un démocrate Macky lu mu lu ñu ko accepté mu def une tournée nationale noonu la mun a accepté ñenn ñi aussi def une tournée nationale. donc warul mun a empêcher ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bëgg dugg si dëkk yi parce que le Sénégal est un indivisible kenn mënul empêcher kenn dugg si benn dëkk man mun naa jógee fii dem ba Ziguinchor sur sous la protection n'est-ce pas de nos sécurités c'est-à-dire de la police parce que le rôle de la police c'est de protéger les personnes et leurs biens mais donc man mun naa jógee fii dem ba Ziguinchor te kenn du ma laal donc suñu demee b di di agresser des des de que y parce que fait la peur est dans quel camp ça montre a peur n'est-ce pas de l'opposition te incha comme ni ma la ko waxee le réveil sera brutal parce que les événements de mars parce que gis nga sénégalais yi doo leen mën a natt fenn sénégalais yi bu ñuy jóg taxaw pour xeex <laughs> doo xam ban heure la ñuy jóg ak ban jour la ñuy ah, jóg mais loolu bu Macky persister à vouloir imposer la population li nga xam ne kenn àndu si bu boobaa population bi dana taxaw parce que le Sénégal l'a toujours démontré. d'accord mais euh, Aliou euh, président Macky Sall gis nañ ne ma ngi def ay euh, tournée économique bien vrai yow mën nga ko tuddee campagne déguisée. Euh, gis nañ tamit ne euh, Pastef ñoom nee nañu danañu amal tournée. gis nañ grand parti bu Malick Gakou ñoom tamit nee nañu dañuy def tournée. Euh, yéen PDS. lan mooy seen taxawaay jamono ji rawatina élection locale yi ñu dëgmal. waaw ñun élection locale yi ñun on a pris les devants parce que il faut pour pour rappel ñun avant sax ñuy élection locale yi ñu koy wax ñun suñu frère secteur général national ki nga xam ne chargé des structures mooy monsieur Saliou Dia defoon na une tournée national pour la remobilisation du parti en vue de ventes de cartes mu waxtaan ak euh, presque tous les départements sections toutes les sections et les fédérations n'est-ce pas dans ce dans ce pays pour ñu préparer wu remobiliser wu ñëpp taxaw nañu gis nañu maan euh, nit yi nga xam ne ñoo toppoon euh, nu mu tudd corte kii ñoo ñoo ñëwoon si si si woote boobu donc ce qui veut dire que le PDS n'est-ce pas sociologiquement qui est très organisée et très implantée partout dans le pays donc nous on n'a pas à se plaindre tey bu ñu waxoon suba élection jot na ñun pare nañu donc pour les coalitions dont tu parles les coalitions n'est-ce pas dans euh, la la la constitution dans son article 4 dafa ne les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la constitution et par la loi donc coalition nekk na li nga xam bu mu nekkee euh, si la si ñu ñëw jusqu'en 88 on avait gagné les élections mais euh, Abdoulaye Abdou Diouf en son temps ne voulait pas euh, de cela n'est-ce pas ñu ñëw en 92 y avait le code consensuel de Kéba Mbaye c'est la organiser les élections en 2000 Ablaye Wade gagné élection yi en en c'est le même code qu'on a organisé Macky Sall gagné élection yi Macky Sall bu mu ñëwee dafa désorganiser ce qu'on appelle le processus n'est-ce pas euh, le fichier même électoral le même lépp la yàq lépp la dégg même le processus électoral indi ay parrainage ak yu demee noonu si si constitution bi pour empêcher des candidats de se présenter PDS ci élection locale yi ba tey euh, dañu gisoon ni amoon ngeen. bu njëkk benn représentativité boo xamante ni tey chaque commune presque chaque département amoon nañ fa kenn koo xamante ni tey mën na taxaw ne man mën naa nekk maire ba pare bokk ci PDS mais yéen mais yéen jamono ji est-ce que du ci coalition ngeen bëgg euh, ngeen bëgg sukkandiku pour dem ca élection locale xam nga loolu nga foog laa wax loolu nga foog mais l'expérience nous a montré que n'est-ce pas depuis que Wade a commencé les coalitions coalition même bu ñuy dem élection législative yi coalition la ñu demee donc ñun on ñun coalition dafa nekk ci suñu ADN mais mais aussi n'est-ce pas euh, le PDS joue n'est-ce pas à, à participer aux élections su ko su sañoon avec un, un vaste rassemblement parce que nous n'oublie pas que nous sommes dans le front et le front est dans ce qu'on appelle cette plateforme bi nga xam ne ñoo nekk di waxtaan ay mbir donc on attend n'est-ce parce que euh, on on parce que comme ni ma la ko wax coalition kenn interdit ko ñun ñoo ko expérimenté fii ci Sénégal. donc bu ñu naree dem coalition aussi les Sénégalais nous dañu dañ ko xam mais Aliou mais tamit euh, est-ce que munoo leen a nangu tamit ne. Mm. grande ville yëpp. Mm. grande ville yëpp. man xool naa ko mais grande ville yëpp. Mm. PDS. amu fa benn représentant boo xam ne wala benn leader boo xam ne ma yeggale benn leader boo xam ne tey mm. war na mën a nekk tête de liste mm. ci commune boobu mm. pour gagner ko xanaa ka yéen xaaral ma yeggale commune yu ndaw ndawaan yi mais grande ville yi tey par exemple tey boo demoon fu mel ni Thiès ville kan la fa PDS nekk nga dem Kaolack ville nga dem Ziguinchor ville nga dem Louga ville nga dem Saint-Louis nga dem Tamba nga dem Kaffrine euh, ville yu mel noonu tey est-ce que ban leaderu PDS nga ñu mën a wax foofu Aliou. waaw bon xam nga yow. Ah. li may wax nii euh, da nga bëgg ma ma déterminer li nga xam ne ah, mooy. mooy non déglu ma rek. ma wax li nga xam ne mooy suñu arme politique. xam nga tey kuy dem xare doo wane sa ngànnaay yëpp. ah même non non non non même sa cumukaay sax am na nooy def da nga koy nëbb da nga koy làq fenn bi nga xam ne ñëpp bañ kaa gis <laughs> donc li ngay def ak li ngay kiimee doo ko wax mais ñi nga xam ne ñoo nekk maire tey avant cela il y de cela presque dix ans mais ñooñu am na ñi nga xam ne kenn xamul leen mais tey ils sont devenus maires par la force des choses yaa ngi may dégg donc affaire bi noonu la c'est-à-dire que bu population bi sentiree ni ñii li ñu li nga xam ne moom la ñuy euh, diriger au niveau de la localité neexu te nga xam ne war nañu il y a lieu de changer pour xool keneen ki nga xam ne war na mën a liggéeyal askanom mais moi je pense que population bi dina ko def parce que élection locale ce n'est pas élection présidentielle ni législative. mais mais yéen ci biir ci massification ci ay waaw xam nga ñun PDS euh, ñu ngi nekk si euh, d'ailleurs euh, je salue au passage tous les les les comment dirais les membres de la fédération les cadres de la fédération nationale du parti et du parce que ñun suñu structure suñu parti dafa organisé. yaa y a ce qu'on appelle euh, l'UJTL ñi nga xam ne jeunesse kuréel jeunes yi y a aussi le la présidente ki nga xam ne moo géré euh, les femmes mooy kuréel femmes yi ak kuréel arabisant yi mais également am na kuréel bi nga xam ne mooy FNCL am na aussi MEL MEL mooy les étudiants mais ñun cadres yi ñu ngi def suñu liggéey parce que tey maa ngi nii toog ci sa ci sa studio n'est-ce pas di représenter également euh, les cadres di wax au nom des cadres parce que je suis dans ce parti donc am na am naa aussi possibilité n'est-ce pas dem dans les dans les chaînes de télévision pour défendre n'est-ce pas le parti te loolu mooy su suñu wargal proposer n'est-ce pas des pistes de solution à notre parti te te ñu ngi koy def euh, nu mu nu mu non tournée euh, euh, pour le moment Saliou Dieng def na ko le secrétaire national chargé des élections def na une tournée très très très très très importante tournée bi nga xam ne fépp mu dem ñëpp gën nañu ni ñu yéen a ko yor ñun dañoo rëccu lu tax ñu sànni kii donc c'est ça montre que un parti de l'opposition nga may tuddee Djiba PDS ni mu toll ak change yi fa am cadre nga may tuddal Saliou Dieng nga xam ne tey bëri na ay critique bëri na ñoo xam ne jàpp nañ ne tey moo leen féewale ak Karim mhm. diggante Karim Wade ak Bara Gaye ñu si tudd Saliou Dieng tuddaloo ma kenn parti boo PDS ba ñuy taxawal PDS Saliou Dieng boobu xanaa sax mën naa nañu dóogul nga may tuddal ma wax ne ma Saliou Dieng moo ko jiite xam nga man euh, damay tënku si décision parti euh, Saliou Dieng euh, parti bi secrétaire frère secrétaire général national maître Abdoulaye wat moo ko nommé ah mu ne ko yow yaa nekk le chargé de structures et des mouvements mu jiite ko de la plus belle manière parce que liggéey bu mu nekk di def nii. man Aliou jibaa dama ko rafetlu parce que Saliou tien mi ngi organiser partie bi mi ngi def liggéey bu am solo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak moom ñu mel ni ñoom Pape Gueye ñu mel ni ñoom Famara Senghor ñu mel ni ñoom euh, ñoom Touré mais euh, ñoom ñu ngi ñu ngi def liggéey bu mucc ayib man tey euh, Saliou dama koy xool bi si yàgg ma ne c'est vrai dañuy wax agom mais en fait Saliou borom bopp la borom xel la liggéeykat la te loolu moo tax je pense que Euh, que Karim Wade ne ko jiital ma lii nga liggéey ko te te man si loolu laay tëngu te dinaa ko jàppale si liggéey boobu parce que même Karim képp ki nga xam ne war nañu mën a proposer te mën nañu kii ngeen war a topp pour pour ñu liggéey ko ak moom ñun on va le faire. yaa ngi dëgg. surtout que surtout que surtout que le frère national moo nommé. Euh, Saliou Dieng ne ko mais mais mais Aliou mais Aliou mais je le félicite au passage pour sa tournée parce que man saa yu demee. tournée jaay carte saa yu demee saa yu dem non jaayaguñu carte. tourné jaay carte mais pour le moment Saliou Dieng n'est-ce pas li mu def remobilisation parti bi mais loolu mooy wone engouement fan la def remobilisation. mais partout dans le pays dem na Ziguinchor dem na Bignona dem na dem na dem na Touba dem na Tamba dem na Kédougou. dem na ba Saraya. Saliou dem na fu ne. donc euh, le par le par le par le par le par le par le canal du parti bi nga xam ne moo ko jox ndigal boobu mu def ko kon man je suis en phase avec ça nomination je suis en phase avec eux donc bu ñu defee découpage administratif ñi nga xam ne ñoom la ñu nommé à Kër Massar aussi yéen sax yéen karimis yi sax euh, yow karimis nga sax yéen karimis la ñu tumaal yéen yàq PDS. Euh, man mënuma comprendre ñun ñoo yàq PDS parce que aussi il faut reconnaître que ñun bu ñuy xeex à l'époque période bi nga xam ne moom la Karim Meïssa Wade euh, nekkee n'est-ce pas sous les mains euh, de la justice ñun karimistes yi dañoo taxaw parce que booba dañoo jugé woon ni les partie en ce moment étaient restés nest en en léthargie donc ñun ñu jóg taxaw. ñu prone pour le karimisme ñu indi benn nouvelle idéologie bi nga xam ne mooy le karimisme gëm Karim nag xam ne li ñu koy tuumal nii justice bi nga xam ne moom la ñu jëli c'est une justice scélérate justice bi nga xam ne c'est un instrument une arme fatale pour liquider Karim Meïssa Wade te loolu la Macky Sall def bras armé boobu la utiliser pour dóor Karim Wade ñun karimis yi si la ñu taxaw saa su ne di dem tribunal di ran fajar man je vous dis toog def naa ay presque comment dirais-je presque tout le temps bu ñuy def procès Karim man du ma raté benn ba benn procès sax Bachir jawara bi mu ngi may dëgg keroog bu ñu ko euh, tuumalee ni moom moo yuuxu woon si biir pale ci biir palais de justice bi man mi maa ko témoigné woon taxaw ne le juge Henri Grégoire ak nu ma tudd le procureur Antoine Diome que ni Bachir deful dara donc dañ ko dañ ko donc mu ne ma ma ne ko man je suis un karimiste mu ne ma donc toi tu es un fan de Karim ma ne ko man Karim laa gëm te moom lay ànd mu ne donc loolu moo tax ngay défendre Bachir ma ne ko bu leen neexee ngeen xalaatee noonu mais man Bachir Diawara. Euh, du sama du sama joxuma lem joxuma dara. mais Aliou yéen karimiste yi yéen xam nga tamit euh, Aliou bi ngeen jàppalee Karim Wade. Mm, mm. ba mu génn ci kaso bi. Mm, Karim di nekk seen candidat léegi ay karimiste ak yooyu est-ce que mënu leen woon koo teg ci suuf ne Aliou Djiba rek PDS. waaw man Aliou Djiba PDS laa aujourd'hui xam nga li tax man musuma man musuma bokk ci benn instance parti démocratique sénégalais pour wax la lu leer man injustice moo tax ma dem jàppale Karim Meïssa Wade parce que ñu ko teg man moom laa àndul. te ñu may déglu xam nañu ni. déggoo ko si mën a liggéey réew mi. non dëggoo non si non non non dëggoo ma non non. da nga koy da da nga da nga ànd Karim uniquement pour yërëm ko pour. xeex injustice. non xam nga tamit injustice mën nañ ko technique. xam nga da nga ah, laaj benn xam nga. nga ne ma ñun karimis yi ñoo yàq. PDS parce que dañoo war a dugg si instance yi ma lay expliquer naka laa def man ba dugg si instance yi man pour ma dugg ci instance yi il a failli créer un mouvement qui s'appelle le mouvement Demba ak Karim ma def benn meeting sama koñ woo nit ñi nit ñi ñëw wuyu si ma ma woo le président de la section di PDS de Golf Sud ñëw wuyu ma ba ñu ñëwee man si lañ ma intégré n'est-ce pas sur la liste n'est-ce pas euh, euh communale élection yooyu jeex bu ñu defee assemblée générale ba former un bureau au niveau de la section PDS Golf Sud si lañ ma tabb comme le secrétaire administratif de la dite section donc kon man maa ngi si plein pied n'est-ce pas au niveau de la section PDS de Golf Sud kon tey man euh, je me je me Karimis c'est vrai mais quand même le Karimis man sama xol la ne c'est pas si sama mais donc kon le PDS comme il porte le xewaat man ma nekk si Karim pourquoi ma nekk si Karim tey si jamono yi nga toll xam nga bu dañ ko daan xeexal parce que logique la dafa amoon li nga xam ne moom lañ tuumaloon Karim Wade jàpp ko tëj ko alors que tous les corps de contrôle l'avaient donné quitus ñu ne Karim deful dara Macky ñëw xool cré yi euh, dekkali ko jàpp Karim Wade tëj donc ba pare ko à man ma jàpp ni bu parti bi demee bi décidé ñun Karim si ñu porté euh, surtout dans le parti avec avec ñoom Babacar Gaye d'ailleurs ñoom ñoo porté le candidat la candidature de de Karim Meïssa Wade mais tey ñun dañoo jàpp ni en fait Karim c'est le c'est la seule alternative capable n'est-ce pas de régler les problèmes des Sénégalais parce que un Karim il a des compétences deuxièmement Karim euh, réew mu mel ni Qatar Doha tey mu ngi koy jox ay projet mu ngi liggéey foofu ay liggéey yu am yu am solo kon Karim am na xam-xam li nga xam ne si côté pétrole bi Karim am na ci xam-xam donc xam boobu bu ko jëlee ak xam bi nga xam ne moom la fi am n'est-ce pas kon Karim am na possibilité possibilité tey n'est-ce pas mu développer le plus rapidement le Sénégal en, en quelques en quelques ans parce que son père n'oublie pas a pris le pouvoir à vu son âge mais Karim il est jeune et il peut faire mieux et plus n'est-ce pas nga déglu ma il peut faire et plus que son père parce que lu papam def gis nañ ko donc te dañoo ne doomu gaynde du jur muus donc léegi dana ñëw ci euh, Aliou Djiba dana ñëw ci Karim Wade bi nga xamante ni moo toog euh, doa googu noonu mm-hmm. euh, bañ a ñëw si réew mi wala ragal a ñëw si réew mi dana ci ñëw léegi yow Aliou Sànq il faut ñu revenir ci Saliou Dieng Kaam ak Baara Gaye ñu ne moo tax Baara Gaye ñu mm-hmm. isolé ko mm-hmm. damm tànk yi néewal ko doole ak Baara li mu daj lépp ci PDS ndax lu rafet na Euh, man dama xam nga xam nga <laughs> booy wax loolu day mel ni euh, y a de l'animosité dans le parti teg parti bi jàmm rek fa ne Saliou Dieng secrétaire général moo ko nommé Bara Fara secrétaire général national moo ko ne ñoom ñëpp sont sont des frères xam nga man damay jàpp toujours ci biir partie bi dafa am li nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel mooy si suñu devise mooy lan mooy la dignité la justice et la fraternité xam nga fraternité mooy naka la ñuy def ñun si au sein du PDS ñu nekk benn bañ a bañ suñu diggante euh, nekk comme des trucs ma ne ko man gëwuma loolu man dama gëm ni li nga xam ne moom la suñu devise wax loolu moo war a nekk donc donc te man euh, man man de man franchement gisuma ni Bara parce que Bara lui-même l'a répondu la fois passée nee moom il est dans le PDS il dans le expérience bi Bara ngay am xam nga ne Saliou Dieng amu ko quand même. nan la nan ngeen mën a defee tournée nationale boo xam ne. waaw Bara Gaye bokk ci. Euh, ñu bare bare bari ay mm. tafsir cooy ak ñooñu kenn gisu leen ci ci tournée bi. nga may tuddee Saliou Dieng moo xamante ni tey. Mm. ban représentativité la am ci biir PDS. Mm. xanaa relation ma Karim Wade. ndax ko am ak Karim Wade relation moom yaay bu mu de bu mu biir PDS lan la Saliou Dieng biir PDS ba war a jiite ab tournée nationale boo xam ne Baara Gaye ñoo ko bàyyi Ndakaaru isolé ko ci parti bi xam ne amul benn instance parti boo xam ne Baara Gaye ma ngi fay teew ci ay réunion xam nga comme li ma la wax man euh, am na yi nga xam ne ces yi nga xam ne man duma si dugg parce que li nga xam ne moom moo tënk parti bi si suñu devise wax naa la ko sànq mooy surtout lu ma jël mooy fraternité kon man loolu lay gën a pris muy Saliou Dieng muy Baara sont des frères te te te te je sais que euh, Baara mi ngi si biir parti bi Saliou mi ngi si biir parti bi kenn démissionné wul si biir parti bi Saliou mi ngi def liggéey bu am solo Baara aussi mi naka naka naka noonu donc euh, ñun parti bi je vois pas ce c'est vrai que y avait des problèmes avant mooy xeex bu amoon fële mais ñu jël wax ñi indi ko ne baar nagam nagam mais te te te non man euh, man tuumaluma baara. waaw mais mais bu ñu tuumalee baara ñi nga xam ne ñoom ñoo en charge n'est-ce de comment dirais-je commission. Euh, buy régler les conflits ñoom jël nañu kii bi en charge te je pense que le moment venu dinañ si prononcé wu mais pour le moment uh-huh. man li ma jàpp ne man bëgguma nekkuma ki nga xam ne euh, damay ñëw pour euh, féewale ay nit man dama nekk nit bi nga xam ne damay dajal ay nit di booloo di di parce que damay topp sama devise partie même bu amee problème sax ma xam ne c'est normal parce que bëñ ak lamiñ ñoo ànd te te en fait saa yu ne dina gis bëñ bi jërëjëf Aliou Djiba euh, il faut ñu dem ci violence yi am ci biir éducation bi dem rek une minute. yow est-ce que élection yi di ñëw nekk nga fenn candidat. Euh, man euh, xam nga candidat moom ñëpp bëgg nañ nekk candidat. Euh, foo bëgg a nekk candidat. non dama ne. non foo bëgg a nekk candidat non ne xam nga man je ne waxuma la ni. que candidat la wala nekk man foo boo ma laajoon léegi nii. waaw foo bëgg a nekk candidat man ma ko man. <laughs> man mii di wax ak yow nii boo ma laajoon rek maa xam léegi. mais déglu ma xam nga xam nga euh, ñun suñu dañoo bokk si benn kuréel bi. nga xam foo bëgg a nekk candidat loolu mais ah. du ma la wax par oui par non mais dama la ne. wala fan la ak fa fu la ne. léegi fooy milité ban commune. non déglu ma rek ma wax wax parce que yow fi nga dugg débat yi man du ma fa dugg man li ma la wax c'est clair man dama bokk si kuréel te dama bokk si section je suis le secteur administratif de la section PDS de Golf Sud te ñun euh, bureau la ñu am suñu président nekk le président Adama Fall muy def liggéey bu am solo et au passage ma ak suñu frère donc euh, xam nga lu lu lu baax moom ñëpp ko yéene seen sa bopp non dama ne lu baax ku ne yéene nga ko sa bopp mais dama ne dama bokk. mais bu ko nekk maire nekk maire non dama ne lu baax laa wax ku ne yéene bopp. ba nga nekk maire mais dama lu baax ku ne yéeg nekk sa bopp. mais dama ne ñun que mënoon naa taxaw tey ma ne la. waaw maa ngi nii bëgg naa mais te fekk base bi bëggul am ñaari différence dafa am lu am <laughs> li nga wax ak bëgg naa nekk candidat Golf Sud. waaw bokkul. waaw non man nous sommes un parti organisé encore une fois xam nga ñun au PDS même les nominations Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Dieng xam nga il est devenu aujourd'hui le mandataire du parti chargé des élections aujourd'hui moom mooy moo ñu war a représenter au niveau administratif euh, voilà donc euh, ñun du ñu jël suñu décision comme ça ñun dafa am li nga xam ne bu Ablaye Wade waxee def leen lii ñu def loolu comprendre nga. Euh, parce que Ablaye Wade mooy également suñu secrétaire général national. donc comme ni ñu koy waxee ñun dañ koy déglu mais base bi aussi ñun dañoo am par exemple ñi nga xam ne ñoo nekk ci section bi te am bureau am ay jigéen am ay góor am na ay nit yi nga xam ne ils sont plus compétents que moi là-bas donc ñooñu tamit n'est-ce pas Euh, peut-être qu'ils aspirent à être maire mais te mënuñu leen ko bañal mais bu ñu toogee waxtaan je pense que n'est-ce pas dinañu am un consensus parce que aussi dama ne man du ma jouer si rôle de division dans un parti man dama nekk ki nga xam ne damay jouer le rôle de fédérateur léegi bu askan bi taxawee ne jibaa yow la ñu bëgg a porter suñu candidat bu boobaa man dinaa bëgg ma xam ne ah man la ba doon keneen la aussi man dinaa ranger aussi gannaaw mais mais ndax ndax mérité nga ñu ñu la fa Golf Sud waaw parce que man je suis man <laughs> parce que je suis également un niveau maîtrise am naa sama sama CAP jeune enseignant de profession donc kon man euh, <laughs> li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy la ñuy wax donc jàng naa xam naa donc affaire maire yi donc loolu jaaxaluñu parce que c'est c'est c'est très minime par rapport n'est-ce pas à ce qu'on peut puisse gérer dans une dans une localité mais quand même encore une fois ñu bàyyi ko si loxo ñi nga xam ne Euh, si si askan bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Golf Sud surtout suñu bureau bi ak suñu section bi ñoom ñooy décidé n'est-ce pas parce que bul fàttee ni le président Adama Fall mi ngi def liggéey bu am solo Ngouda Dione également cadre la si biir parti PDS mi ngi def liggéey bu am solo donc ay nit la ñuy nga xam ne ñu ngi si biir parti am na ñeneen ñi nga xam ne lii mu ma leen te ñu nekk ay personalité si biir parti bi kon ñooñu je pense que ils ont le même pro ils ont un bon profil également pour être maire mais quand même pour te dire que ñun noonu la ñuy te man si loolu lay joué saa yu ñu taxawee ñoom ñu ne ah jibaade jàpp nañu ni yow yaa war a mën a nekk maire donc nga bokk ci cadre yu PDS yi dañoo gis ne violence dafa am ci biir euh, université yi biir école yi. ba am na benn kuréel sax euh, G7 ñoom nee dana ñu dem euh, ci ab grève mais violence bi ñu gis ci université yi. ci biir école yi yow en tant que jàngale jàngalekat lan moo ci sa xalaat. bon man li sama xalaat si violence yi bon dafa rafetul dara vraiment ça nous fait très mal très parce que dëgg naa tey benn débat fële dëmb kenn di ko wax si benn débat mu ne am na benn professeur au niveau de Thiaroye euh, jël benn élèves yi jël ay pont teg ko si euh, chaise bi. pour mu bu toogee ñu koy filmer nag pour mu ñëw pour mu ñëw toog affaire bi affaire bi kii ko je pense que loolu la expliquer affaire bi mais xam nga loolu c'est euh, dafa doy waar surtout si suñu réew mi fu mu toll nii parce que loolu lu ko waral rek c'est c'est parce que certains parents également n'est-ce pas euh, on fuit leur responsabilité te école nu mu meloon avant ak léegi dafa wute bu njëkk ba ñun suñu maître nest pas sax ñu taxaw si gox ñu gis ko ñu koy ñu koy ne monsieur bonjour dañuy daw parce que boobu temps le maître n'est-ce pas était devenu quelqu'un n'est-ce de de de sévère voilà non seulement daf ñu daan éduquer mais daf ñu daan jox xam-xam donc mais tey xale yi léegi xaw ma avec les méthodes yi nga xam ne université yi aussi waaw si université yi di leen di sànni xeer euh, voilà di yàq ay restaurant mais loolu yëpp vraiment euh, ñu ñu ranger ko si contre éducation yi nga xam ne des parent parce que certains parents ont manqué à éduquer leurs enfants te tey le châtiment corporel bi nga xam ne mooy dóor élèves si école loolu dañ ko interdire donc loolu moo tax bu njëkk ba ñun dañ daan soo xoolee ñi daan jàng ba CM2 bu njëkk ba xam-xam ñu daan xam par rapport ak maintenant c'est un peu difficile bokkul parce que bu njëkk ba hmm. dictée soo defee cinq fautes sax ci as zéro te léegi dañ lay jox ay nombre souligner moo bi ñu ne la corriger faute xam nga loolu enseignement dafa gën a dafa gën a te aussi méthode d'éducation bi aussi dans les écoles dafa changé on joue plutôt n'est-ce pas sur euh, euh, comment l'instruction c'est-à-dire euh, sur euh, inculquer du savoir à l'enfant plutôt que sur euh, insister sur l'éducation alors que l'éducation ah. devait être euh, de, comment dire ça très important n'est-ce pas dans le système éducatif te loolu moo ñàkk si lan nga bëgg a waxaat ci wàllum éducation loolu ñu ngi koy ñu ngi koy dénoncer ñu ngi koy dénoncer déjà a déclarer une grève euh, annoncé une grève pour le mardi mm-hmm. débrayage et le mercredi une grève totale mm-hmm. donc euh, ñun ñëpp euh, en tant qu'enseignants nous allons nous y atteler pour que ñu mun a montrer à l'opinion nationale internationale que vraiment il faut que la violence parce que nos camarades qui sont dans les classes ñëw ñu fa pour nekk ennemi kenn dañoo ñëw pour joxe xam-xam donc élèves yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci classe yi nañu jàppee noonu que ñooñu dañoo bay seeni waajur seeni kër pour ñëw jàngale leen. donc am nañu kër am nañu famille donc nañu comprendre noonu mbir mi. léegi euh, Alioune Djiba ba tey euh, en tant que jàngalekat euh, lan ban point nga bëgg a waxaat ci lu jëm ci wàllum njàng mi. waaw li nga xam ne point bi nga xam ne moom a gën a métti tey si affaire njàng bi mooy le cas des décisionnaires bi nga xam ne décret 74 moo ko moo ko déterminé alors décret bi euh, lu mu lu mu lu mu lu égal lu mu def euh, si si si si lu ñu wax si décret boobu c'est très clair euh, injustice totale moo fa ne entre un fonctionnaire et un décisionnaire parce que décisionnaire bi mi ngi mel ni ñaari nit ñu yegg si benn immeuble yow nga jël ascenseur man ma jël escalier yow da ngay yéeg yow yegg nga en en une minute parce que cinq deux minutes yow yegg nga ba di tëdd man maa ngi kii je fais faut faire trente minutes pour ma mun a yegg si mbir mi donc ça veut dire que avancement yi du ñu benn tey boo nekkee dans le corps des IA nga nar transposer nekk dans le corps des I. Mm-hmm. Euh, euh, da dañuy jàpp ni yaa ngi doog a commencé enseignant même boo defee trente ans nest pas ki nga xam ne mi ngi doog a commencé deux mille euh, deux mille vingt et un bii mu am diplôme am nest moom bu ñu koy reclassé day mel ni moom moo lay raw moo lay lay raw grade mais loolu faute bi n'est-ce pas c'est c'est l'état colonial qui avait fait la faute avec l'état euh, bi nga xam ne mooy l'état l'état l'état central mooy suñu nguur mi moo ñoo def erreur donc loolu c'est à corriger parce que c'est du ah, temps c'est du bon réforme yi ma kii mooy na ñu génnee li nga xam ne comme décret moo indi loolu na ñu génnee décret boobu ñu dugal n'est-ce pas li nga xam ne mooy beneen décret pour ñu mun ñoo boole ak au même pied d'égalité avec parce qu'il est man maa ngi gis sama benn mi ngi ah IA bu mu jógee IA mu toog par exemple 15 euh, ans mi ngi jàngale alors mu am kapam CAP alors mu nar a dem euh, à la classe des I. Mhm. xam nga <laughs> rappel sax joxuñu ko ko. xam nga loolu sa fait très mal alors ku am cap te mu jógee 2020 euh, bi mu am cap mu ñëw nekk enseignant kooku mooy raw ki nga xam ne. moo def 15 ans est-ce que te boo jëlee te boo jëlee retraite li ñu lay fay n'est-ce pas dafa minime par rapport ak li ngay kii te yow xam nga nii ni retraite bi nga xam ne décisionnaire c'est par deux mois donc ñun bokkuñu FRN ñu ñu ngi IPRES donc xam nga loolu dafa dafa dafa metti donc loolu moo tax état dafa war a corriger injustice boobu comme moom dafa ne dafa ne dafa jouer sur la justice sociale parce que slogan mooy loolu mooy la justice sociale dans le pays mais donc comme loolu la bëgg a indi ñun ñi enseignants yi ñi nga xam ne ñu ngi ci situation yu yooyu nañu état jàppale nest pas mu régler li nga xam ne moom moo situation des décisionnaires que les décisionnaires n'en le grand stress des décisionnaires tey mooy suñu jegee retraite ba war a dem retraite te loolu état bu ñu dem euh, te loolu état war na si xam war na ko xam mu jéem a xool comment il va falloir faire pour glisser n'est-ce am benn décret li nga xam ne moom loolu laa amoon pour wax di di wax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, suñu suñu suñu suñu collègue enseignant décisionnaire yi euh, le combat va continuer ñu muñ parce que ba may ñëw si si débat bi am na ki ma waxtaanal si ñoom alors muy monsieur Camara di ko nuyu au passage alors mu nekk coordonnateur n'est-ce pas de ces décisionnaires di xeex n'est-ce pas pour li nga xam ne mooy n'est-ce pas l'amélioration des condition de vie n'est-ce pas de ces gens-là d'accord laaj bu mujj bi rek euh, ki nga xam ne tey moom mooy euh, Karim Wade. Euh, Karim wàdd ndax fii ak deux mille vingt quatre dina ñëw ci Sénégal. waaw Karim Meïssa Wade ñun ñu ngi koy xaar parce que tey ñun foo tourné rek ñoo ne la kañ la Karim di ñëw nga xam ne sénégalais yi ñëpp ñu ngi koy xaar. ni koy xaaree ñoom ñun noonu lañ koy xaaree sénégalais xam ne ñoo. non dama ne sénégalais yi ñëpp ñu ngi koy xaar. tey sénégalais yëpp d'accord nañu ni lu ñu def Karim du dëgg du yoon. Macky Sall mais du dëgg du yoon bokkut ak yaa ñu doy ci réew mi. c'est différent waaw non waaw dëggoo ma. ma ne Macky mm. euh, ñëpp kon Aliou doon néewal doole fii mën naa see ñëw jàpp wala nit di ma néewal doole nga ñëw nga ñëw xeexle ma. mais firndeelul ne euh, nit ki mën na jàppale Karim Wade ci injustice mais mën na koo bañ jàppale si pour mu jiite réew mi aussi. waaw dama ne Karim Meïssa Wade tey Euh, man euh, xam nga xamantewuñu bu baax parce que dañuy waxtaan nii rek mais mais li ma gis say jàngat bu ma am si Sénégal bés bu Karim Wade ne cëpp biir aéroport diggante aéroport ak permanence wala point E non kenn du xam ñaata nit ñëw macha allah Karim Wade rek moo mun def loolu parce que man gëm naa ni Karim Wade c'est le seul candidat aujourd'hui capable n'est-ce pas de développer ce pays vu compétence vu l'expérience qu'il a au niveau n'est-ce pas des des des, des sphères étatiques ma jàpp ni avec euh, sa sa sa comment dirais-je le fait que mu dëkk par exemple au niveau de de de nekk Qatar nekk Doha di dimbale ki nga xam ne moom mooy le prince qui est là-bas donc cela montre effectivement que expérience bu mu am si pétrole expérience bu mu am si état bi ñaar yooyu bu ko boolee te nekk doomu Ablaye Wade parce que nee naa la doomu gaynde gaynde lee doon donc Karim Wade bés bu ñëwee Sénégal ne cëpp incha allah rabi. Ah, n'est-ce lépp dina comme comme booy nii lépp dina ñu ne dëgg la non non parce que soo gisee golo gars yi di lappi lappi nii c'est parce que Karim Wade n'est pas là mais le jour non dama waxuma waxuma tur dama ne boo gisee boo gis Macky Sall newul di lappi lappi boo gisee Macky Sall di lappi lappi nii di toog mais bés Farba wax na ko nee na bés bu Karim Wade ñëwee Macky Sall day gën dëkk non dama ne xam nga man du ma du ma personnaliser le débat mais Macky sañ naa taxaw ne moom mi ngi lappi lappi c'est parce que. gisul ki nga xam ne moo taxaw ak moom waaw man wala du ñëw man dama jàpp ni nest wax. waaw des voix officielles. waaw ñu ngi fële si beneen camp. dañoo xaar ba sonn. Oh, voilà donc ñoom euh, non c'est-à-dire que ñun ñu nekk si biir PDS euh, soo gisee ñu toog du dara mais suñu ngor moo tax suñu dignité parce que man musuma nekk ministre ministre musuma nekk DG musuma nekk dara mais ñi nga xam ne ñoo bàyyi PDS ñu dem fële mais danga nga foog ne pour lal seen poche lañ fi nekk gëmuñu PDS gëmuñu askan bi ñoom seen i poche ñor man su ma leen gisee télé ñu leen di invité ñuy wax ak ñoom ñu leen ne woy yaay diw damay damay tiir damay ne ban Sénégal valeur yi nga xam ne moom la suñu maam yi am mooy valeur de jom et de ñi nga xam ne ñoo fi bay PDS dem fale amuñu ko nañu waxante te dëgg ñooñu nekkuñu fi pour askan bi dañu nekk fi pour liggéeyal seen bopp seen njaboot te ñun dañ fi nekkal waa PDS tey ñi fa toog ay góor dëgg lañu c'est des gens dignes c'est des gens braves malgré la les difficultés yi nga xam ne ñun moom la ñuy dund ñu ngi taxaw di défendre li nga xam ne mooy suñu projet politique te xam nañu suñu projet politique moo valable parce que tey bu président Macky Sall demee ba jëlaat suñu politique bi nga xam ne moom la ab lay Wade jëloon pour mu octroyer les chefs de village euh, cinquante mille francs avec des des véhicules n'est-ce pas loolu la Macky jëf décret bi nga xam ne moom moo ko signé woon décret baa ngi fi ba léegi décret boobu nag abrogé wuñu ko kon les chefs de village war nañu mën a réclamer si Macky Sall li nga xam ne moom mooy seen arriéré li nga xam ne moom la leen Macky Sall amel parce que Macky Sall amel na leen xaalis bu bëri et un décret tant que cela n'est pas n'est pas abrogé ce décret est reste valable. donc Macky Sall na xaalis nis bi ñi nga xam ne mooy chef de village yi voilà. donc jërëjëf di la gërëm. maa ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal bu baax. Djiba mbokk yi moom la ñu euh, invité woon euh, tey euh, ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM Alioune jiba bokk ci PDS bokk ci cadre yi seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw allah.